gannaaw ba mu yëkkatee ay kàddu ñàkk war ma dendale ko ak li nga xam ne moom mooy alxuraan ba sax mel ni kuy weddi ay wax yàlla suñu boroom moom Cheikh Ahmed Cissé génnaa na rek yooyu la kàddu di jégalu suñu boroom ak bépp mboolem jullit bu wax ji miit ci ay kàddoom muy xam ne ni ñi ko bëgg bu ko kenn defendre ci mbir mi lay ndax sa nit bu juumee rek na reconnaître que ni dafa juum mu war a jégalu rek daal di jàll ci leneen ci ak fàttali rek moom Cheikh Ahmed Cissé da doon ci mbir mi nga xam ne moom moo xewoon ci li nga xam ne moom mooy décès wu acteur bii di Jean Paul ak coow ba ci juddu rek ñuy laajte ba xam ndax jullit mënees naa ñaanal ab catholique saa bu génnee àdduna te noonee la génnee yooyu kàddu yu ñaaw di ko dendaleeg li nga xam ne moom mooy alxuraan ba sax waa ONG Jamra daal di ko génnee ci boobu la kuréel ba mu bokkoon doon liggéey ñoom ci ànd sàmm jikko yi mbir mi nag daal di jur coow ba ku ne di génn di ko attaqué ñenn ñi sax di ko menacé ci la génnee rek di saaku ngir ñëpp jéggal ko di nangu li nga xam ne moom mooy jumte bi nga xam ne moom la def